Mouhamadou Lamine Thiam euh, association des imams et oulémas de Saint-Louis ñu ñëwoon fii doon euh, wàcc ñaanal euh, suñu mbokk nga xam ne génn àdduna boobu tey def na ñeent fukki guddi di am di Hafiz si moo ñu fi taxoon a teew di ko defal ñaan ñaan yàlla suñu borom yàlla yàlla nangu ñaan gi di wax nag ne moom Mouhamad Hafiz suñu laajee ci moom danañu lot ngir tontu ci liñ ci mën a wax rek la yaa waxoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kan mooy Seydina Muhammad mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran jikkoom kaanu xuluxul Qur'an kon ñu jàpp ne moom tam ci loolu la tegoon tànkam euh, ndar gi mu dëkk ñu seet lu ne ku ku mënoon a rabatle ay mbokk la waaye ku mënoon a dékku itamit jafe-jafe àdduna àndoose ko ngir yeneen doomi aadama yi mu mën a oyof ci seen kaw nekkoon koo xam ne tam ku fàggandikoon alxuraan la tegoon tànkam ci sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Khalifa Niass dafa ne euh, journée bi le 19 waaw dañuy gis ne rek li alxuraan di wa atasimu bi hablillahi jamian maanaam euh, ñu ñu ñu booloo. Euh, comme xel mi dem na ba jot ne diine gi jot na ñu boole rabatle suñu ay force di ko dajale te bu fekkee dañoo tasaaroo du mën a nekk foog ñuy am jataay yu mel ni euh, cofeel gi ba di gën di nekk ci ñun ku nekk di gis sa morom di ko sopp ku nekk di gis sa moroom di am yëg-yëg ci moom loolu la day yokk loolu comme su ko waxee rek mbégtali ci ñëpp te ñu ñu nangul ko ko itamit euh, nga dégg président Mouhamed Sakho di président association des des imams oulémas de Saint-Louis ne na ko ko chaque le 19 danañu àndandoo wala ah ñu àndandoo ñëw teew ko fi bokkandoo ko ak ak moom. ñu gis ni jamono yi ñeneen ñi di jóg pour dooleel lislaam ñeneen ñaa ngi jóg di ci dug ci dugal loo xamante ni bokk ci daanaka bokk ci lu mel ni euh, sëñ bi ñuy dëgg taay Kolda mu andi alxuraanu boppam di wax kaaba boppam di wax julli ji julli ci làkkam en tant que borom diine nitu diine jógee ndar ndar nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci wàllu diine moo tax tey ñu jël la pour nga wax ñu yën ban jàngat ngeen def ci loolu ak ban lan ngeen fas yéene ne loolu moo waroo nekk taxawaayu lislaam pour loolu bañ law ci réew waaw li ko tënk rek mooy dañ ci àndandoo ñun ñëpp di ko naqarlu di ko mettitlu waaye am na ñoo xam ne seen kàddu gën naa kawe suñuy kàddu ñooñu itamit dañoo war a jóg ñu wax ñun boo ko defee ñu mën a toftalu ci kàddu yi ñooñu xam taxawaay bi waaye taxawaay bi benn la rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi lu mel nii xewee ca Makka ba mu ko xeexee ba génn Madina gannaaw nag li nga xamante ne mooy fatxu Makka ba mu ñëwee dafa jàng ne dëgg ñëw na. lépp lu doon ay caaxaan képp nee na ko bokkaale janjax daanu na ci kaw suuf alquran tegu na ci kaw sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegu na ci kawam kon keneen ku ñëw samp lu ni mel yaa ngi ci ay caaxaan. alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi tuddi imam Cheikh Oumar Daat dëkk Njawdun ci UGB eh, fa lillahi alhamdu wa shukr maa ngi bokk ci association ay imma yi nga xamante ni ñëw nañu fii tey ji ci bés bu màgg bi eh, xëy na lu nu waroon wax lu ci bari wax nañ ko waaye ci point bi nga xamante ne sama mbokk mi imam bi génn léegi fi mu doon appuyé foofu laay bëgg a def ta'yid bi maanaam ma ma gën ko dëgëral mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngaloon benn xadis boo xamante ni su fekkente nit gi am na kattan pour dindi ci loxoom li jaadoon mooy nga dindi ci sa waaye boo amulee kattanu loola sa làmmiñ boo amulee kattanu loola na nga ko bañ ci sa waaye li mu junj fii nii njiital réew mi kon kon am na ci am na ci pouvoir maanaam ñoom ñoo amee doole ji nga xamante ne ñoom ñoo a jiitu bu ko defee ay imma yi topp ci seen gannaaw ndax yonent bi muslim moom la ñu jàng ci sahih mooy suñu borom subhanahu wa taala moo ko feddali ci alquranul karim maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatama xaatama mooy mottali na kon yonent dootul am muy muy ñaar beneen bi moo de suñu benn nit yàlla di suñu maam di Cheikh Umarul Fouti ko di Adama Aïssi dafa wax ci benn mbind mu yéeme mu ni ku ñu tër rendi ku ku nekk dana am ku jooyal bu mu des diine l'islam man nag jàpp naa ni toll noonu foofu ci lay waxee ne li kulli qatilin naihatun yanunahu walaysa ala diinil am ku ko a siiw am na ku naan al aswad al anasi bokk na ci ñi siiw waaye am naan ku naan sidia a siiw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni woon na ak juróom-ñaar yuy woote ne ay yonent ñi ñeenti jigéen la ñoo nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mouhamed Idimane Thiam président l'AIS association des imams oulémas de Saint-Louis euh, li nga xamee ni moom moon fi indi mooy daje rencontré euh, jaalewaat aussi sunu mag Mouhamad Hafiz Sy ibnu Ahmed Iyane Sy di ko jaal aussi sunu euh, mag sunu nijaay Ahmed Khalifa Niass li nga xamee ni mbokk yi wax nañ ko concernant waa ji nekk fële ci Kolda bu malheureusement Sénégal Euh, fonkul histoire Sénégal fonkul xam-xam le Sénégalais dafa am courte mémoire mais c'est pas la première fois yi mel ni ñu koy woote Sénégal mais bu ñu xoolee ñi ko fi woote ñëpp euh, benn amuñu xam-xam ñaareel bi aussi jinne ñoo leen di trompé jinne ñoo leen di trompé bon euh, bañ a tooñ mais sinon mën fi tudd ay tur yu bari yi nga xam ne jinne yi trompé na leen nax na leen mais après seen après waa ji bu bu fekkoon Sébata Amady Diouf mi ngi dund ba léegi wala ku mel ne moom am nañ Sénégal. dañuy dem ñu jëli ko ñu faj ko dinañ koy faj parce que mais aussi euh, Sénégal euh, fi mu toll nii réalité yi mu tol nii pour sécuriser le pays il faut ñu il faut ñu wut ministre bu yor affaire culte affaire religieux pour mën a recadrer ñu mel nii pour mieux sécuriser le le pays parce que kenn ni mu nekk fi di fa wootee euh, jinne yi trompé ko trahir ko muy wattu li nga xam ni kenn lu du lu kenn xam c'est comme aussi mënoon ne fa aussi former benn armée kenn du ko yëg. Alors, pour sécuriser la pays, pour, pour le pays, pour adopter aussi ak l'action réalité, il faut l'État, le ministre des Affaires Guinée, pour nous surveiller. Nous savons les djinns, les, les satans, ils ont trompé, ils ont trahir. Alors, nous pouvons réunir une stabilité. Parce que le Sénégal, nous un peu partout, de gauche à droite. mais affaire bi ñaar rek la muy alxuraan ak sunna mooy diine lislaam lu dul loolu diine lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah man la yoro imam yoro Diop Ndar ah comme li mbokk yi wax léegi rek maanaam euh, l'islam moom nit yàgg nañ ko xeex waaye amul leen njëriñ ndax l'islam yàllaa ko samal boppam ni ku ne jëw nu jëm gëm xeex muy fii muy feneen waaye taxul lépp ñu am ci ndam kon ci tënk rek maanaam que ni jullit nañu fexe nekk benn rek gën a jàppoo waat bañ a gees li xam mooy seen gannaaw joxantu loxo incha allah rabbi ndegam soo ku xeex l'islam doo yaa ci am gàcce melo ci am ndam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu maa ngi tudd Cheikh Yahya Diallo maa yore commission scientifique ci association des maitres coraniques ak euh, association des imams et oulama euh, nekk tamit déclarant responsable franco arab Yahya Diallo nekk it président ACAR muy association pour la coordination entre aide des actions religieuses ñuy naqarlu li nga xam ni actualité la mun naa ko wax dinaa wax ci ñaari kàllaama mooy tooñ nañu ñun Haalpulaar yi. ndax min komi halpular yumma e so nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi nabiya baadi minne caggalam annabi arata woodi nodduɗo o wi ko kanko woni annabi battidiɗo o fenni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e balɗe jawtuɗe tan macron o waɗi ɗo jaltugol o wi yo nelaɗo waɗe caricature ko wiyete yo dessine yimɓe fof gummi ɗum muusi min kanko ko waɗi ko ko ɗum woni ɓuri bonde kono suma dellu siwate ci kallama pular mani mbokkumi dafa tooñ képp kuy doomu haal pular ndax li mu def moo gën a garaaw li Macron defoon Macron dafa génn ni nañu caricaturé kooku dafay jël nataal li nga xam ne xamu ko gisu ko kon munoon nañ ko sax bañ a manifester wu di naqarlu waaye kii li mu def moo gën a bon ndax dafa yal na ma yàlla jéggal ci li may wax dafa fenloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi mi wax ni yonent dootul ñëw sama gannaaw yàlla wax ñu ko ci alquran moom mu ñëw di woote yonent ñoo ngi koy wax ni ko na ci dellu gannaaw ndax jullit ñëpp bu ñu àndandoo booltoo di ko xeex suñu allahuma mënu ko dékku du ñu jël yat du ñu jël fetel du ñu jël paaka waaye am nañu suñuy ñaan mën nañu wéet guddi ñun rek ak suñu borom ñu ñaan suñu borom mbir mi yal na suñu boroom tegg ci kaw suuf kon képp kuy woote yonent boo ci daytalawul liy dal sa kaw doo ko xam te léegi mu fay ñuy wax nag état bi na ci jël responsabilité feeñ na léegi ci jotaay bi ci suñu ziyaara bi feeñ na ni capital bi mu ngi tàmbalee nekk ci ndar nit ku baax koo gis sëriñ sëpp jaar nañu ndar ndar amoon na tribunal musulman te jamono jooju temps colon yi ñoo fi nekkoon mais kenn ñemewul def lu mel ni bu ngeen di fàttaliku ñaari korite wala ñaari tabaski daaw amul woon ci jamono jooju ci gannaaw kolon yi la ñu jël ñun jullit ñi nag léegi ñu yoreel ko suñu bopp ñu jël réew mi def ko réewu lay layik mbir mi nag doogaa di manifester lu mel ni waaye lii nañ ci taxaw ci lu mu gën a gaaw fi may jeexalee sama kàddu mooy en tant que déclarant responsable franco arabe Yahya jàlloo maa ngi ñaawlu objet yi nga xam ne ñoo ngi ci profito ji ti ju dugal sangara di ko jox suñu njaboot gi ndax kaay leen ñu def leen yéeféer jàpp suñuy njaboot def leen yéeféer ci bi ñu juddoo yàlla xaraamal sàngara ñu ni ñu def seen pexe pour seen njaboot bala ñuy màgg ñu naan sàngara parce que yonent bi nee na ku naan sàngara ci àddina doo ko naan ci àllaaxira te ndax xam nañu sàngara àllaaxira nu mu mel yonent bi sallallahu alayhi wa liggéeyeel liggéeyal nañu li nga xam ne bu ñu góorgóorloo ñu dund dund gu teey dee dem aljanna waaye bu ñu sàgganee ñu mel nii daanu ñëw xajamal réew mi jëfandikoo seen alal jëfandikoo seen i pexe seytaane ànd ak ñoom ba ñun ci suñu wàll bopp ñu ñàkk suñu valeur ci diine lii daal la amoon kàddu yu ma ci sànni te wax ni état bi na taxaw ci responsabilité yi nga xam ne mu ngi tegu ci kawam su dee responsabilité partagée quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp ci kaw état la moo ñu waral defar ministère bi nga xam ne dafay taxaw di saytu mbiru diine moo war a delloo si waat attey charia jox nu ko ni nga xamee ne xaade yi ñoo nga fi ñoom Aman Ndiaye Mabey ñoom Abdou Masib Diop ñoom Euh, am na ñu bari ñi nga xam ne ñoo ngi fi ñu jox leen responsabilité kaadi waaye suñu àttee dafa am beneen instance bu tegu ci seen kaw kon loolu nañu may lislaam ñu am autonomie bi nga xam ni képp ku def lu mel nii fésal ko daañ ko mën a woo laaj ko delloo ko gannaaw bu bañee l'islam dal ci kawam yal na yàlla defal nu jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah